àndal di leen sant bu baax ci bàyyi xel gi ngeen ñu bàyyi xel yéen mbokki internet yi di topp suñu ay euh, lii rek vidéo ci euh, chaîne bile di ko ànd ak yéen ci euh, waxtu wu ci nekk ci wàllu actualité de la semaine rawatina ñu santaat suñu borom bi ñu teewaatee bile yoon nag ngir fës yi yéene jukki lenn ci ay ponc yoo am solo ci wàllum actualité yi gën a marqué wu ci euh, semaine bi euh, ku nekk xam na ne euh, li gën a fës ci ay bës bi bokk na ci coow lu Ousmane Sonko ak xale bu jigéen boobu ñuy wax aji Sarr mu nekk problème boo xamante nag c'était une affaire privée maintenant bu ñëw nag wàlli siyaan ci mbirum public ñuy wax affaire publique maintenant mbir mi nag dafa nekk loo xamante ni coow li bëri na lool wante dama jàpp ne it benn côté nañu wax dëgg it it bu wax dëgg jotee euh, ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko euh, ci la personne d' Ousmane Sonko ne m' intéresse surtout mais Ousmane Sonko en tant que leader politique pour man euh, foofu bu fekkente ni comme moom it moo def déclaration ne daan na dem. ci li nga xam ne moom moo di salon bi mooy erreur politique mënul passé loolu parce que Ousmane Sonko mënul gis tamit ne ay noonam dañu yàgg bëgg wax ne dañ ko yàgg wax ne que dinañ la am di ko jaare fu nekk te it loo ko bañ bañ xam ne c'est un leader qui pèse lourd euh, ci poids politique ci jamono ji ci kujje gi euh, kañ doon laam-laamee ci numéro euh, ci chef de l'opposition wàlli na fekk dina njiitu xew mi ci keppaaram mburoog soow ma nga yëngal aka naan moom xuyal naan jamono ji mu nekk ki nga xam ne c'était le seul espoir pouvoir bi nekk ba tey mën na ko nekk tey dana ko nekk xam naa ne bu fekkente ni euh, euh, nit ñi tamit euh, ànd nañ ci ak moom wante dama jàpp ni waroon na moytandiku di dem ci barab yu mel noonu parce que bu demee ba doon naa fa dem pour man parce que salon de pour man foofu noonu aussi du place am donte médecin moo ko prescrire pour man médecin bu la prescrire moo Ousmane Sonko aussi waroon na mën a dem ci médecin beneen. médecin mu la bindal demee ci médecin maanaam kinésithérapie am nay médecin ñoo xam ne dañu jàng seen xam màcc lool ci wàllu yi mu dem fa wala ci clinique wala ci hôpitaux yi wala am benn kinésithérapeute bu ñëw di ko faj pour man loolu aussi waroon na ko mën a def wante tamit waroon nañu mën a bàyyi xel aussi leneen bu dee ci côté ñi nga xam te ñoom ñoo di pouvoir bi ndax ñi ngi leen di tuumaal ne ñoom yàgg nañ koo fexeel euh, pour man aussi Sénégal war nañ bàyyi leen li nga xam te moom moo jëm ci euh, bu fekkente ni rek nit dafa bëgg a wu bëgg a jiite dara euh, nga bëgg am taxawaayu ne da nga koy euh, gal gal danga koy roof ay pexe yoo xam ndëgg sarax ngir mu dem ñàkk a dem pour mën aussi loolu baaxul parce que euh, ku nekk xam ne ne mbir yi ak ni mu tëddee bu ci justice dafay dëgg liggéeyam euh, dina euh, bëri ay révélation yu bëree bëri ku nekk xam ne ni euh, ngir jiiñ nit viole donte actuellement viol dañu ko criminaliser six mois bu njëkk bi mu nekkee délit enquête bi dina ko duré ngir yenn yenn information complémentaires yi mais bi la yoon ak crime bi ñu ko def pour moom aussi dina jafal lool pour que ñu mën cee daan Ousmane Sonko bu dee teg nañ ko ci procédurement mais lu ci mën di am mooy dañu respecter ak ak yelleefu l' et l'accusatrice l'accusé ak l'accusatrice maanaam ki ñu tuumaal ak kii tuumalee wante lu ci mën di am mooy ki nga xam xamte moom moo di euh, Ousmane Sonko euh, xëy na it tamit lenn mën nañ ko koo nangul mooy que également am na benn influence boo xamante ne am na ci moom jëm ci ndaw yi euh, moom aussi waroon na suuraale li nga xamante moom moo di xale yooyu ko topp ngir bañ leen a may parce que am na ci ay sonkis ñu nekkoon ci moom ñoo xam ne mosuñu gëm ne Ousmane Sonko demul ci salon bi man gis naa ko xam ne Ousmane Sonko mosul dem ci salon bi ça veut dire tey jii kon moom également am na ñenn ñu mu frustré ci biir kuréelam d'autant plus que également am na ci ñoo xamante ne ni eh, aussi euh, ñoom it ci li nga xamante moom moo jëm ci wàllum pouvoir bi jàpp nañ ni ànduñ ci ni ñu doxalee ci mbir mi waaye tamit lu ci mën di am mooy politique bu Sénégal mooy bëgg a eh, am gàkk-gàkkam te Ousmane Sonko dafa nekk espoir boo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne également day euh, gën a euh, joxaat nit espoir ci wàllum changement du système moo fi doon woote rupture woote fi système pour mën également affaire viole bi bu ñu bëggee def conférence deska d'administration bëgg a changer li nga xam te moom moo di suñu actualité nit ñi waroon nekk pensé wu ci leneen ci wàllum jafe-jafey euh, santé bi les structures sanitaires qui son actuellement remplies fees dell ak li nga xam te moom moo di jafe-jafe dund gi ak yeneen problème yu nekk ci réew mi pour mën tey ji waroon nañu nekk ci leneen loo xamante ni moo ñu ëppal importance wante lu ci mën di am mooy pour man Ousmane Sonko ci wàllum dem ci salon boobee ak lu mu mën di doon Ousmane Sonko dafa war a xam ne du Ousmane Sonko boppam Ousmane Sonko ñëpp la moo porté volonté. ne dafay nekk leader politique dem ba am benn aura dem ba am benn poids électoral bu mu pesé wu première fois ci élection présidentielle nga am ci yenn yi nga ci am première fois ci élection législative nga am ndaw ay député pour man loolu du lu tuut euh, loolu daf ko war a concrétiser daf ko war a préserver maintenant xam ne ñi booto ci ginnaam ñoo bëri kon man pour man fréquentation lieu yooyu nga xamante ni war na faa dem dinaa ci ñëw léegi ci benn vidéo ci salon yi waroon nekk beneen gis-gis boo xamante ni feneen mënoon na joxe beneen dayoo ko dem ci salon yooyu waaye tamit ak pouvoir bi waru waruñoo profité ci galgal nit ndax bañ ku si xool ci siis bi président Macky Sall moomu réew mi da ko fee fekk dina fi jóge bàyyi fi réew mi réew mi da ko fee fekk te dina dem bàyyi fi réew mi kon war nañu bàyyi également li nit ñi defoon ñu kon ne di ko répété nekk ci marathon judiciaire def nañ li am mooy ni ñu bàyyi nit ñi di parce que un pays qui se veut démocratique il faut mu am opposition bu opposé wu am pouvoir buy gouverner maintenant le pouvoir qui gouverne dafa war a def de sorte que les populations euh, soient dans de très bonnes conditions au moins bu ñu mun satisfaire tout le monde à 100 pour cent yàlla rek moo matal mais également ñu mën a fexe ba au moins ak 80 pour cent ñu jéem a gérer leen ni dem keneen ñëw def ko opposition bi également mën a opposé wu selon des idées des arguments des combats d'idées fexe ba xam ne dañ joxe ay propositions yoo xamante ni peut-être que dina mën jëmale réew mi kanam askan bi dañ ci adhéré ah projet bi kat doy nañu projet de société bi adhéré nañ ci kon kii buñ ko dénkee suñu réew dañ mën a développé pour man affaire de viol affaire de meurtre yi euh, day mel ne kon jamono ji nag lañu naan ku ñu jiñ euh, dëmm ngay ngay ngay ngay ngay ngay seeñoo yeelu liir loolu lay fidèle tey nag war dañoo bàyyi affaire privée ñu koy nii di ko def affaire publique euh, lenn am na ci aussi bu dee aji Sarr waaw mais Adji Sarr man damaa jàpp na yow mën a de viol répétitif maanaam ñu lay sàkku te ba pare di la xupp indi ngànnaay nit woo la maa ngi ñëw nga ne yaa ngi koy xaar ma de ku ma woo indi ngaanaay pistolet ne maa ngi ñëw du fa toog de. beneen bi médecin yi d'après information yu jot ku nekk en état de grossesse kay wala ko ëmb kooku kay ndaw. mbir mi bëri na lu si tey xel ba pare les langues les euh, ils ne même langage jëkkëru borom salon bi borom salon bi ak moom kenn bokk ci wax est-ce que du jox dëgg ñi naan kon dañu politiser bi dafa am ñu ci dilu def dil ngir daaneel ko parce que tudd nañ ci koo xamante ni laale na ci régime bi wax nañ Sidi Ahmed mbay di neveu ci Pape euh, ki nga xam ne moom moo di Maodo Malick mbay parce que bi mbir amee xaarla yëpp a jaxasoo famille Mbaye la ñuy wax ku sant Mbaye ñi juj nañ ci Yakham Mbaye ñeneen ak ñeneen bañ commencé ko sécuriser ainsi de suite mais Maodo Malick Mbaye ci état bi la nekk ci mouvance présidentielle bi la nekk moom mu njëkk a wax ne sama doom nekku fi fekk ko nangam sangam te nee nañ Sidi Ahmed Mbaye moo ko ñëw seppi foofu jël si ko bi bi mbir yooyu di amee li ñu supposé ne am na kon kay est-ce que du jox gëdd ne pouvoir bi dañu profité également ci lu nu mel ngir gën a lalal ndëgg sërëx Ousmane ko tey nag loolu bu dee am na mën naa nekk parce que ku nekk xam ne Ousmane Sonko dérange également l'état du Sénégal loolu ñëpp xam nañ ko mais li ci am solo mooy bu dee rek enquête bi tegu na ci yoon tegu fi mu war a jaar yuuxu dina dar gémmiñ yuuxu dina jibboog fu ñu ko foogewut loxo dina dar gémmiñ loolu maa lañ ko wax te bu tegoo ci yoon dëgg viol consentement